lii la ñu amoon yaakaar day am donc liggéey bi mu liggéeyal Sénégal ci sept bi mu toog si Sénégal lii rek loo mu a am li mu am ni xamoon nañu day ko am ñun li ñu woon askan liggéey président wax nañu leen ko te ñun suñu bopp am na lu ñu jàppalee askan bi bi ñu toogee président liggéey na ci réew mi wax nañu askan bi di président def ñoom gisal nañu seen bopp ñun suñu bopp itam am na lu ñu jàpp loolu moo tax na bi ñu waxtaanee ak askan bi bi ñu leen expliqué président li mu def ak li mu nar a defaat ki amee DC mandat loolu moo yombul mbir mi commune Niane Tougoulor PUDC def na fa Sétudou président def na fa ñaar ñaari forage ak benn forage Felanchine ak matériel bi nga xam ci wàllu mbéy mi loolu yëpp am na fa loolu président jot na ko def li mu jëlee bopp réew mi population ñaan tukulóor yëpp maa ngi leen remercier si seen taxawaay bi ñu def maa ngi remercier président de la république xam nga soo gisee élection bi yomb ci moom la xam nga nit su liggéeyee rek pour jàppale ko day yomb wante ne il faut ñu remercier askan bi nga xam am nañu gis-gis ñu gis liggéey président pour ñu joxaat ko deuxième mandat pour mu continuer liggéey bi askan